leen ma seen noppub diir ma tàbbal ci bànneex bépp coono bu ngeen doon dund ci wàllu yónnee ak jot xaalis jeex na tàkk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 waxee dafa ndar képp réew mi dëgg neexul di dellu di leen jaajëfal nee naa leen seen bégte mooy suñu bànneex di ànd ak yéen ci lépp loo xam ne xew-xew la rek ak actualité ak xibaar euh, tey nag ñu dalal benn ndaanaan boo xam ne la kenn dootu ko présenté ci millier showbiz mu di artiste chanteur boo xam ne macha allah li muy def mën na ko loolu mu di euh, Demba Guissé yaakaar naa ne Demba Guissé nag doonatul ku ñuy présenté dañ leen di bàyyeeg moom rek mu daal leen di nuyu ñu daal di wéyal suñu waxtaan Demba nuyu nañ la. Euh, salaamaaleykum maa ngi lay siyaar Chacha di kontaan ci. dalal bi di rafetlu vraiment plateau bi aussi di nuyu ñëpp di nuyu aussi sama mbokk alpulaar yi naan mbii mi wii mi e wii maa mi mi salminaama mi salminiima donc di kontaan vraiment si ñëpp ak sama mbokk séeréer aussi mm-hmm. Mm-hmm. Aïcha jaajëf mi ngi noonu Demba gis na Demba nag dañuy daal di ñëw rek uh, ci li nga xam ne moo di waxtaan wi ndax fi mu ne du ma ne kan mooy Demba Guissé ndax Sénégal ak àdduna xam nañ kan mooy Demba Guissé loolu nekkatul question dañuy ñëw ci li actualité yi ak li nga xam ne uh, moo gën a am solo Demba Demba ak uh, festival Demba sa diggante ak festival ci lan la dooree. waaw su xam nga. d'habitude euh, bu ñu lay contacter rek ngay bokk ci ay festival xëy na du du du tuur bi parce que nit mën na la ëpp tour sax te fekk du participer ci loolu. xëy na musique bi ngay def la moom la euh, festival di soxla. Mhm. donc mooy tax des fois ñu lay contact ci loolu. Mhm. du dàqawaay. Mhm. du ëpp tour. du ëpp style. mais musique bi ngay def moo lay dugal ci festival yooyu. je pense que li ma njëkkee ci musique bokk na ci li ñu soxla ci festival yi donc ñi xam ma ci ma débuté ci. Mhm. léegi sax xëy na laa xaw a di cof noonu ci mbalax beeg yooyu. Mhm. mais musique bële ne bi nga xam moom moo yóbbu ci festival yi yooyu laa doon faral di def. moo tax mhm. aussi contact yi aussi am na fi et tout ça. moo tax pour di si participer du nekk lu compliqué. ok mhm. d' accord dégg dafa am ñaari style musical euh, boo xam ne moo war a dem ci festival yi ak bi nga xam ne mooy euh, comme yi xale yi bëgg léegi comme lu ci mel ni ayoo nenne ak yoo leen également. waa xam nga xam nga ay AEBB ay yole la yooyu c'est bien parce que def na euh, defuma fi mbalax bu dàq mbalax bi nit ñi def mm-hmm. waaye nag euh, yooyu même bu doon dem tam ci festival yi du noonu ñu ko defee fii lañ ko yóbboo foofu quoi mm-hmm. parce que festival la plupart producteurs yu internationaux yëpp dañu déplacé wu ñëw mm-hmm. euh, déglukat yi nekk déglu loolu aussi du du ay aaya e bébé moo leen intéressé ni ñu ko tëggee dégg mais bu doon dama koy def ci festival aussi du noonu laa koy defee parce que ñi ma bëgg ñu déglu ko booy gis gis seen bopp il faut ma defal leen musique boo xam ne moom la ñu moom la ñu dégg quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. ok démb mën nañ xam ban mooy sa premier festival bi nga njëkk a def ak avant bu mujj bi nga mujjee dem def fii euh, Espagne. festival bi ma njëkk a def euh, c'était en 2000 2012 mm-hmm. maa ngi koy wax sànq. ci euh, benn émission. démb du moins en 2012. Mm-hmm. Euh, fii sax la njëkkee d'abord euh, Mali. Mali depuis ma jógee sama concours bi euh, Kassanga au Mali. am na festival bu am bu ñuy wax festival festival. festival bu amoon Bamako fàtt naa nu tuddati woon sax festival xaw ma lan. ko xaw ma lan fàtt naa quoi. Mm-hmm. ok mm-hmm. donc bi mu amee foofu noonu ki ko defoon mu Fantani Touré. je pense léegi sax dafa décédé. Mhm. donc c' était en 2011 la woon boobu. Mhm. après ma njëkk ma njëkk a dem en Europe c' était en 2012 maa ngi ci àndoon ak euh, maa ngi koy wax keroog maa ngi ànd ak benn grand Lamine Dabo. Mhm. Euh, euh, ak waa Daara ji. Fade Freddy ak. Ndongo ak Ndongo. ñu ngi ko defee woon Rome ma Rome Rome Italie. ok en était en 2012 boobu mooy njëkk festival bi. yeneen ni après di ñëw di ñëw di ñëw ba festival bi mujj tey ma def ko Las Palmas Espagne. Mhm. donc euh, muy euh, je pense que sax ay deux mois ci ginnaaw trois mois ci ginnaaw donc mu euh, mooy mujj bi quoi. ok mhm. léegi festival yi ngay dem dafay doon loo xam ne ay jeu concours la dem ba gisee gagné wala dafay doon festival yoo xam ne yow en personne yow yaa ko bëgg nga lijjanti sa ay link dem pour tourner ko. non bu njëkkoon la demee woon noonu ci man ma ci doon bokk. mais festival yi du nekk ay concours quoi festival yi ay dañu ciblé. Mhm. des tey tey ñu dugg benn dëkk dugg tey Sénégal. Mhm. ne waaw tànn nañu te bu dee kenn lañu tànn la si bu dee ñaar lañu tànn yow ak keneen ak keneen bu dee Mali ñu xool xool xool xam parce festival yi dëkk yu bari ñoo fay faral di nekk euh, la plupart. Mhm. donc man nag ma am chance vraiment bu ñuy def musique lu jëm ci international rek xel dem ci man. parce xëy na euh, maa ngi def benn ritm musique boo xamante ni dañ koy faral di gis ci Baaba Maal. Mm. Baaba Maal festival ni si àdduna bi yëpp def na ko donc des fois sax nit bëgg a ñëw soxla Baaba fekk Baaba Maal am euh, empêchement mm-hmm. ñu xool ni booy bi li ñu soxloon ci Baaba Maal même bu dul bu ko amul à cent pour cent mhm. dinañu am à 2 pour cent <laughs> après mu ñëw assuré loolu mhm. donc loolu moo tax yenn saa yi sax ñuy woo Baaba Maal ci dara Baaba Maal des fois sax du mën dem fenn mu ne ma dem ba gisee demal demal nga def loolu. bien mu boole ma des fois nit boo mu ne ma Baaba Maal moo ñu ko moo ñu jox sa contact. loolu aussi bokk na ci euh, loo xamante ni euh, confiance la Baaba Maal am ci man aussi. Mhm. d'accord léegi est-ce que du tam festival yi moo ëpp xaalis moo tax dem ba bëgg affaire festival. festival du moroomu lii sax yow yow yow benn festival buñ la si fayee mën nga def fi fukki soirée yoo xamante ni doo am sax mu ci bi de. yow xanaa xamoo soirée yi ñuy def nii nii. li répétition la rek. Mhm. <laughs> su soirée yi si boîte yi nii. Mm. répétition la rek. atelier la rek. waaw kon ci gàttal festival yóbbu na Demba foo xam ne ay soirée concert rek yiw ak grand festival festival festival da lay may respect ci doomu aadama yi. surtout sa moroom sa nawle yi musicien et tout ça. Mhm. parce que c' est des yoo xamante ni c' est évident aussi du ñëpp ñoo fay euh, dem parce que même boo bëggee même boo doon fayit tax ñu jël la. Mhm. boo doon fayit tax ñu jël la parce li ñu soxla. dañ koy te te d'habitude booy faral di euh, liggéey ak tubaab bi da xam ni ñoom tubaab amuñu amuñu kii amuñu euh, kii du ñu def kii en corruption. Mhm. loolu amu fa. Mhm. ay doon dugalal ma sama kii noonu non non. ñoom dañuy xool kon du am ay link Demba. gan du am ay link ay lijjanti ay connaissance kenn koo xam. waaw mais xanaa xamoon fii artiste bu nekk war naa mën a am sax tourneur tourneur mooy genre producteur genre koo xam te ni day day ñëw dëkk bi tey kon tak tak tak di xool diw ak diw ak diw ñëw mhm. laajte ñu yóbbu la fële moom moom bu ci dee am mu am ci mais quand moom mooy kii rek la kii beg yooyu war yi waruñu ko am. moo tax fii sunu artistes yi fii Sénégal. Mhm. bari ñu bu ñu programmé ci loolu même li ngay gis d'habitude ñu koy tëgg en Europe sax du nekk mhm. programme genre bi day nekk rek les Sénégalais de l'extérieur ñoom lañu fay tëggal. xam nga mais tourneur mu ngi ci réew mi mu ngi ci yeneen i réew ñoo xamante ni loolu kese mooy seen affaire fu festival am ci àdduna bi dañoo xobe xam nga xobe ñoo xam ne moom bu ñu bu ñu dañu xool nii rek xam ni fii am na ay kii léegi ay link la dañu am contact yi mm-hmm. dañuy am xam affaire yi fan la féete dañu xam naka la ñu euh, euh, envoyé gars yi par mail parce que d'habitude sax gars yi duñu wax ak sax ki ñu wax sax duñu ko gis mm-hmm. mel ngay envoyé diw daa la ñu xool bu dee da leen di envoyé sa Eh, sa pressbook eh, biographie wala sa site ah eh, 3 point nangam nangam nangam point com ñu dugg xool kii lan ak lan la def et tout ça parce que dañuy xool. ba xam ne kii est-ce que. nit la buy def ay spectacle loolu moo tax des fois ñi lay laaj sa pressbook ak yooyu quoi. xam nga léegi nag sa dossier. sa dossier de presse yooyu yëpp artiste yu bari des fois nga fëgg artiste ba pare sax amul dossier de presse. Mhm. xam te yooyu bokk na ci li lay wane lekk yow artiste nga bu ñu reconnaître xam euh, programme bi fii bii fii bii fii bii fii photo yi am am ay différence mhm. ah, euh, musique yi am différence et tout ça bu ñu mhm. dégloo xool ni kii te aussi YouTube aussi da leen dimbali parce que des fois aussi ñu xool kii kan la. ñu xool est ce que kii ñu ngi koy suivre est kii moo tax des fois gars yi seen bopp si nombre de et tout ça pour am parce que yëpp ay ay confirmation yu lay montré que ne kii euh, en quelqu'un la ci li muy def. après ñu am confiance ci yow nag après euh, kii la ko boole si affaire mhm. voilà c' est important Demba Demba Djiku disponible macha allah artiste boo xam ne dafa disponible lu waay la ci ay mbokk nawleem euh, dañ koy gis euh, sincèrement euh, lan moo tax ci li nga xam ne moo nekk sa festival bu mujj bi waroon doon loo xam ne sa nawle yi ñëpp dañu waroon génn médiatiser ko jàpp ci xam ne seen nawle seen doomu réew muy génn dem comme par exemple. dama lay Euh, am na ay artistes yoo xam ne dañuy tëgg ay festival affaire bi day day day cartonné. dama lay wax. Mhm. boo yaakaaree artiste jëlal la video naan jàppale leen diw mu ngi ci festival sàngam. Mhm. boo ko defal sa bopp kenn du la ko defal. lu tax loolu. dama lay wax. Mhm. gis nga aar bi ni bopp sa bopp la. sama xarit la ak sama doom ndey ak yëpp. <laughs> ci kaw la rek rek. Ah at des fois da ngay da ngay da ngay gis euh, euh, ni euh, des fois da ngay lan laa def ko da ngay faral gis des fois quoi yaa ngi dégg mhm. mais dinaa dut baaraam tuuti. Mhm. ci presse bi. waaw. Mhm. Ah. ci presse bi yéen. presse bi. gis nga lu tax sunu artist yi. amuñu yooyu ouverture ci yenn. yenn affaire ba gaa yi découvrir ne kii day mu ngi def lii ak lii ak lii ak lii. Mhm. li si ëpp ci yéen la. comment ci ñun la. yéen télé yi. Mhm. yéen rajo yi. Mhm. yenn animateurs yi. yenn presse bi. tax euh, nit bu jógee fii. ñoom beneen réew. drapeau Sénégal la sol. am na sénégalais yoo xamante ni ñu ngi toj extérieur bi ci seen li ñuy def. Mm-hmm. boo yemaloo ko ci musique ah. mm-hmm. am na ci euh, ci fecc bi danse bi am na ci woy bi am na ci football bi am na ci basket bi. Mm-hmm. am na ci karaté bi am na ci judo bi yaa ngi dégg. tey karatéka wala judoka day ñëw am trophée fële ñu kii ko yaa ngi dégg. xam fii kenn du ko bind parce que intéressé wu leen. dégg boxeur bi day am fee dara ñëw fii taxaw kenn du ko bind parce que amul leen intérêt yéen presse bi lan ngeen di xaar mu génn mm-hmm. diw def na sexe mm-hmm. diw diw violé na mm-hmm. diw nangam sangam ñëpp relaté loolu ne dem ba nga baal ma je suis pas d'accord mais ma mais ma doo nangu d'accord mais ma mais ma doo nangu d'accord li ngay wax ni non non dama lay baare foofu xam nga lu tax euh, tey yow ñun sa festival bi yes actu daf ko dugal yow xam nga yow da ngay personnaliser affaire bi. ci yow kese non dama dama expliqué dama de manière générale presse bi nga wax dama ne dama ne xam nga tey boo nee xam nga tey néew ma ni euh, euh, joxuñu ma kenn dama boole yéen ñëpp yaa ngi dégg dama ne la. Mhm. fii presse yi nekk fii laa la wax. Ah. Mhm. li indi leen buzz. Mhm. wala lu jëm ci sexe ak violé naag tëddee na kook yóbbu na kook jàpp nañ kook dorog ngeen gën a mën a fësal que diw. mu ngi produire à l'extérieur. mais bu fekkee sénégal yi loolu lañ bëgg nag. ah léegi ah loolu mooy seen liggéey fo ah loolu mooy sa réponse. xam nga site bi lan lay xool. lu koy indil contenu. lu koy indil contenu bu ko leeree ne ordinateur bi taxaw bu ko bindee wax ku mel ni man dina ko seetaan ku mel ni Demba dina ko seetaan. loolu lay dem dugal. Mm, loolu ah, formation boobu nga def. non non non je dis pas que formation boobu laa def. Oh. Euh, genre ci parles que ne euh, euh, sit internet yi. presse sénégalaise bi laa la wax dugal. la plupart lu indi buzz la ñu gën lu ñu gën a focaliser dama lay wax. dama ne mm. lu indi buzz ñu gën a focaliser yaa ngi dégg xam nga. Mm-hmm. gis tey par exemple tey benn benn xale bu jël tey benn benn benn benn benn benn trophée. Mm-hmm. moo xam si jàng alxuraan la moo xam si tari nangam yaa ngi dégg benn sit mbaa ñaari koy dugal. Mm-hmm. yeneen ni intéressé wu leen parce que ñu koy vie bariwul mm-hmm. dama lay wax mm-hmm. dégg ah bari na fi yii fan nii rek yii fan nii da ngay gis tey ñu la bii xale de moo moom euh, ci concours euh, euh, li ñu doon def ci Coran bi et tout moom moo gagné yaa ngi dégg xam nga ñi koy dugal sax du bari parce que intéressé wu xam lu ñu intéressé wu kuy saaga mbaa kuy wane sexe kuy wane nangam ndang kuy wax lu gën a bon mbaa kuy wane lu gën a bon ñu jël ko ñëpp focaliser yaa ngi dégg waaye nag bu fekkee ne que ñuy seetaan. Mm-hmm. Euh, lii loolu lañu bëgg a seetaan. Mm-hmm. waaye yéen ngeen dugal aussi li intéressant c'est important mais faut pas aussi ñëpp a focaliser boobu basé rek ci benn affaire yaa ngi dégg. Mm-hmm. sunu Sénégal fii ñoo bëgg buzz buzz ni ñu ko bëggee mooy que moom li gën a li li gën a mën a yéeme loo xamante ni da. Euh, euh, Euh, euh, maanaam bokkul suñu valeur bokkul suñu bokkul suñu culture xam nga ñaaw na salte na bon na yaa ngi dégg. Mhm. moom la moom ngeen di gën a wane sénégalais yi. Mhm. ñëpp focaliser yaa ngi mhm. la preuve. nga ne bi ma demee Espagne sama festival bi. kan dugal na ko. yes actu yes actu parce que da nga généraliser bi ngay wax. ok waaw. waaw waa parce que yes ak si dafa bokk si si ma généraliser moo tax moo tax moo tax man man. voilà moo tax ma cité mais sinon du ok may ma mm-hmm. ok merci beaucoup yes yes actu ah mm-hmm, mm-hmm. ma ñu retourné. Hmm. sax appelu allo kaa ñi invité la nga ñëw wax ci festival bi waaye yaa ngi fàttaliku sama vidéo sama photo yi bi may tourné sama clip bi bi ma duggee si piscine bi. site bu ma woowul amul. Mm-hmm. lu tax parce que Demba Guissé moo nekk xawma ci piscine bi sangook benn xale bi ñëpp woo ma loolu moo lay wane li yéen li gën a bon li ah. gën a yées li kenn soxlawul ngeen bëgg di wane yaa ngi dégg ku ma dañ maa woo ba sama téléphone bi mm-hmm. toj yaa ngi dégg mm-hmm. xoola kër waaw dañ la ah, Demba bul wax loolu parce que jóge bi nga jógee ci sa festival bi autant pour moi moo tax ñu invité la hmm? n'est-ce ngeen maa woo nag mais dañu amul ak dañu nekkoon ci liggéey bi. <laughs> le plus important mooy ñu woo ah, la na ma mooy ñu wax ci festival bi. festival ba jàll na maa ngi xool beneen. trois mois loolu c'est rien <laughs> c'est rien. léegi lu tax mu duggee ci piscine bi yéen woowu leen ma si <laughs> bàyyi mu des trois mois ngeen woo ma. parce que ñun duñu natt nañ ay sites yoo xam ne duñ jël lu bon. ñun du ñu wane ay ñu ne ci piscine du ñu jël ay kuy def lu bon lu baax rek ci la ñuy dox. <laughs> yéen day mu liggéey piscine bi daal si suur ba ngeen may woo waaye bu boo demee feneen defi leneen liggéeyal yóbbu turu couleur Sénégal. Mm-hmm. non doo sax comprendre ay waay waay waay. et très parce que doomu réew mi la nekk ci réew mi dem aussi tam bi may seetaan maa ngi def euh, maa ngi gis ci euh, euh, tableau bi ñu def ci cosaanu Africa te loolu c' est important. mënoon nañ ko bindee neneen wala ñu defee ko neneen nga sol aussi tenue traditionnel wane sa culture sa ay valeur loolu mhm. c' est c' est important parce que ñu ci bëri léegi bu ñu génnee dem Europe wala affaire festival dañuy dañuy xaw am complexe wane seen culture wala seen. cosaan ak seen aada mais dem ba tout le temps dangay ngay ci li nga nekk di di di di valoriser sa réew di valoriser li nga xam ne mooy sa cosaan ak sa aada. loolu la moo tax des fois ñu may yóbbu ay dafa bëggee fi mag et tout mu mm. loolu sax moo taxoon sax ma defoon tuuti benn benn benn benn benn pause tuuti ci musique bee. Mm-hmm. indi leen ay aayo bébéeg yu mel noonu parce que des fois. Mm-hmm. dañu fàtte ni man fii laa dëkk. Mm. ci banlieue bi laa juddoo. Mm-hmm. fii laa yaroo. fii laa màggee. Mm-hmm. luñ lu xale di foowee rek man fowe naa loolu. Mm-hmm. dégg euh, man dama doon tëgg sabar. Mm-hmm. ma gën a nekk xale. Euh, dama jaar ci simb di simb comme xale yi ñu koy simbee yaa ngi dégg. foowee lu nit di foowe ci àddina yaa ngi dégg. pour euh, def théâtre ak comédie. def ba yàgg nag yàlla xiir ma ci lii fekk amoon naa sama métier mécanique. dégg yàlla dafa nag xëy na fii la ma yàlla xiiroon. ma nekk fi muy ci musique bi quoi waaye pour wax la que lépp dund nañ ko ci biir ci biir euh, musique bi donc moo tax euh, loo ci wax rek xam nga fi nga ko teg quoi mais quand même yéen moom presse bi war ngeen gën a bàyyi xel ni que quand c'est important. Mhm. war ngeen a wax ci loolu. ak ay presse am del prestige presse laa wax déggoo ma de joxoñu ma kenn yéen ñëpp laa wax. yaa ngi dégg parce que xam nga lu tax dama lay dama lay wax dama lay wax gis nga taxul wax gis nga gis na taxul wax xam nga gis nga mën wax pare contenu sa bopp man maa la mag. Mhm. dégg nga mhm. ma ne mhm. suñu contenu li koy doxal ba pare nga bëgg a waxaat encore bëgg a génn yaa ngi dégg man maa la mag maa la gën a ñor li ngay wax maa la gën a yaa ngi dégg da <laughs> ngi dégg xam nga man damay damay ak ah ku ne invité na ma. wax naa ku ne. fii muy fenn yaa ngi dégg xam nga booy moo lay booy wax dama ah, dama lay xool dama lay déglu yaa dégg. waaw des fois nag euh, di nga wax ba yeew sa bopp te xamoon ni yeew nga sa bopp. yaa dégg mënoo ma ne conco ah, à continuer bu amul importance xaw ma ne bu bu bëriwul vie duñ ko après nga bëgg a. mais xam nga. nit nga ci wut. pour da nga donc da nga gis nga xam nga dèjà yaa ngi wax ñaari wax. da ngay d'accord fii après nanguwaat fii xam nga. mais ba tey néew dañuy foofu génnal foofu balaa nga gën a daanu. déedéet génn foofu waa daanu. Ah. dina àgg suuf nag mais du ma daanu. nit mën nga am ay contenu sans pour nga deful bon parce fii tam Sénégal la pays de la teranga la. <laughs> voilà ah, ah, mu noonu ba euh, tey euh, Demba gisee la mu ngi noonu mais Demba sànq da nga wax lu am solo ndax nee nga des fois style musical bi nga doon def peut-être loolu moo tax ñu naan dafa booy bi dafa waane dafa bëgg yëfu mag peut-être di la yóbbu âge boo xam ne amoo ko. loolu moo taxoon ngay stand by ñëw ci li nga xam ne mooy nag euh, mbalax mu tar mu saf sàpp bi mhm. mais mbalax bi jigadiw la parce que ayo bébé bi dem ba ayo bébé bi mu eh. wax dëgg yàlla dem ba fa mu la yóbbu moom ayb waa bi waa am na ñoo xam ne dañ may may woo ayo euh, ki kon xamuñu woon sax da ngay woy mbalax yi quoi mhm. nii ah waaw bon mais après da ngay xam ne xëy na ñoom euh, musique amul frontière déedéet xam nga dangay woy Mm-hmm. style yëpp ngay woy mm-hmm. xam nga bi ma bi ma bi ma xam festival boo gis wala programme boo gis rek à l'extérieur da ngay jékki-jékki rek en euh, sénégalais yi nekk foofu te xam la dañ naan euh, am na am na maa ngi joué joué naa avant may joué festival bu mag bi nii am na mm-hmm. benn dëkk bu ma dem si biir euh, Espagne bu tudd Lan Lanzarote la Lanzarote ah. may profité di nuyu ñoom Penda ci xaal yi ak ñoom euh, bon waaw ah, ok bi ma demee am na ba festival boobu nag boobu bokkul woon ak bii boobu boo bu mag bu amoon ci ci kii bi ci ci ci plein bi nii ah. mm-hmm. mais mais mais sénégalais yi. Mm-hmm. yi assisté woon yi ñëwoon xam nga sénégalais ah, dañoo baax bu ñu la gisee rek dañu daw ñëw. Mm-hmm. mais mais woy naa festival bi ba wàcc concert ba wàcc. ah sénégalais ne ma doo wàcc il faut nga woyal ñu aaye bébé. boobu fekk temps bi jeex na AIBD bi ñu koy woy amul amul sax jéem ak instrument sama voix gis naa bi mais après ñoom ñoo doon répondre après euh, ci morceau bi public bi yaa ngi nga war a xam ni que ñëpp bëgg nañ ko yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaye li lay yóbbu ci festival wala yi tax tey ñi lay contacter tey bay di la parce que la les les plus grands festivals yi gën a mag yi tubaab bi ñoo koy xool. te tubaab bi bu ñu ko dee xool musique bi ñu mën a ñoom cons bi ñu mën a jaay bi gars yi mën a jaay moom la ñu bëgg yow nga gérer leen loolu. ay dégg lu mbalax bi saf saf saf mais attends la preuve yu xoolal Youssou Ndour mm-hmm. euh, tour Sénégal bi mu yóbbu partout. Mm-hmm. mais boo dégloo baax a baax a baax xool Youssou Ndour Youssou Ndour fu de Youssou Ndour am na lu ne lu ne yaa ngi dégg baab Maal la même chose. Mm-hmm. dégg boo jàngee foofu rek doo réer waaw nit dina nekk fii toj fii toj fi ñëpp ne moom la moom la yaa ngi dégg xam wax waaye euh, pour mu dugg feneen day xaw a compliqué parce que dafa limité trop trop trop foofu. Mhm. li ma ci xam ba xam ko daal mooy mbalax bi moo gën a nooy. moo gën a nooy fii. mais yow li war a gën a nooy fii. nga nooy fii poos bi ci la de. mooy yéenam. waaw moo tax. yow mën naa nooy fii bañ a indi dërëm. waaye mën nga am visibilité am ay. TikTok xam nga te léegi xam nga la nit ñi léegi TikTok la ñuy woyal TikTok la ñuy woyal da uh-huh. ngi sax ku ku ku kuy dugg studio sax di ñaan yàlla naan yàlla na ko TikTok bi jël mu ne waa ah TikTok bi daal li xam des fois gàtt gàtt gis-gis xam nga ndaw bët we uh-huh. weesuwul nga toog ah, na yàlla sama morso bi kay ah, TikTok bi jël ko ma ni wax. mais fii artistes yu bëri buñ génnee single wala son balaa ñuy am jàmm dañuy woo tiktokers yu mag yi wala tiktokers yu mag yi pour ñu defal. waaw loolu nag mooy loolu nag mooy gàtt gis-gis loolu mooy euh, ndaw bët. kon Demba du def loolu. kan yow yaa mag loolu. Hmm, waxuma loolu de dangay def ndànk de may wax loolu ma wax dama ne. xam nga ah terewuma la ndax sama morceau yi yi morceau yi ma jël ñu yi yi ma génnee mu xew yëpp TikTok bi moo koy gën a siiwul fii yaay ngi di xam mm-hmm. mais TikTok bi dañ koy def am ci nii rek sa waay nii ku nekk wéy yaa xam nga mais du yàgg mm-hmm. amul xaalis fii nga koy def rek mu yem après jàll na yaa ngi dégg mm-hmm. déggoo man la est-ce que mos ngaa gis fii xale bu fi jël morceau seexlu di ko TikTok doo ko gis de pourtant si am na kan day am. yéen moo seexloo man dama bëgg seexloo. waaw ah, wuy ma nag xam nga nag yow da ngay bëgg rek def <laughs> seexloo ak Souleymane fay dégg ay artistes yu mag. yaay est-ce xam nga seexloo bokk na tey ñi ñu gën a reconnaître ce festival ah, ki ah, ki anglais. Mm-hmm. fi ñu teg seexloo teguñu fa sax kenn bëgguma jël fi benn exemple si benn artiste bu mag yaa ngi dégg. Mm-hmm. fi ñu teg seexloo teguñu fa kenn anglais. Mm-hmm. yaa ngi dégg. c'est est-ce que xam nga sama benn xarit mës na ma wax keroog benn affaire nee na na gis. mës na gis benn mës gis euh, Cheikh Lo biir Angleterre mu wàcc ni di dox nen tubaab bi ñëw mel ni kuy kuy kuy kuy ku koy ku koy raamal ku waa ku koy raamal mm. dégg et pourtant Cheikh mën na jaar fii xale yi duñ ko xàmmee xale yu ndaw yi mm-hmm. dégg mm-hmm. parce que woyalu leen génération bokkul écoute yi bokkul niveau Cheikh bokkul sax ak niveau ñun ñii fi nekk nii di wax yaa ngi dégg mm-hmm. et pourtant Cheikh Lo jëlal ma Cheikh kenn TikTok kenn du ko jël dégg et mu ngi gagné vie ci li nga xamante ne mooy musique yaa ngi dégg. Cheikh boo ko tegoon fii bu defoon concert tey ah Sidi Diop def concert fii ah? wax dëgg yàlla nag euh, euh, ay ñaar ak ñett ñoo fay nekk euh, ci Cheikh te ay connaisseur la ñu nekk. ay dégg waaw dama lay jox exemple laa la wax yaa ngi dégg xam nga mm. bu Sidi Diop ba dana fees dell xale yi dinañ fa ñëw yaa ngi dégg xam nga lu tax parce que Sidi dafa woyal xale ya. Mm-hmm. fii la xale yi déggee mu woy leen yaa ngi def mais Cheikh Lo nag woyam wax dëgg yàlla. Mm-hmm. wax dëgg yàlla nag il faut nag nga am foo toll nga mën koo déglu. Mm-hmm. est-ce qu'il faut comprendre loolu. Mm-hmm. moo tax ma ne la euh, doo gis morso TikTok yi ñu siy wax ay morceau Cheikh ak ay Wasis Diop ak ay yooyu doo ko gis lu tax parce que niveau bi xale yi di dégloo morceau ak niveau mag ña nekk dafa bokkul. loolu moo tax dem ba ñëw wayal xale yi ayoo bébé parce que xale yi loolu lañ mën a déglu waaw moo tax ñu bëgg ko nag ñu bëgg ko loolu mënta ñàkk xëy xa xamay Cheikh Lo ay yooyu ay Ismaël Lo ñoom vraiment xam nañ leen partout ci monde bi mm-hmm. mais ay ndaanaan amuñu temps wu vraiment di ay TikTok quoi vraiment est-ce sax xam nañ ko ñu xamuñu ko sax du ki amuñ sax compte yooyu Cheikh Lo xam naa boo dem wala Ismaël Lo ne ko TikTok dafa naan la <laughs> lan mooy loolu parce que ree la koy def <laughs> xam nga xam nga mais nag booy dañ koy parce que foofu la toll léegi nga wayal leen loolu moo tax ma ñëw génne aaya e bébé ak yaay di nga waaye nag aaya e bébé sa série bi da jóg yi xam yaay di nga xam ak rythme bi bu mu nekk ni ni ni ni fii la yem. ok mënul dem ca tubaab ya. non tubaab ya wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla nag pour dire vrai moom. ah tojal fii ba ba ba ba mu tojatoo wax dëgg yàlla boo demee loo ay la lañ def parce que tubaab ni ñuy dégloo en day metti seen bopp. ok parce mbalax dafa dafa lan dafa bëri bruit këjëng këjëng ak yooyu. waaw parce que tubaab tubaab tubaab du ñu du ñu du ñu du ñu euh, euh, euh, suñu xeetu mbalax bi noonu di ko déglu xam nga bu ko dañ ko changer autrement pour mën ko déglu. bu mhm. ko def neneen pour mën ko déglu. Mhm. Youssou Ndour am na morceau yu muy joué. càng càng càng càng. da ngay sentir reggae nga sentir benn rythme boo xam ne dina mën a fecc leer Baaba Maal ay morsom la même chose ñeneen ak ñeneen yaa ngi dégg mhm. waaye dama la mbalax koo tubaab yi nga fi gis ñuy fecc mbalax yëpp mooy xëy na tubaab yi def ay bale ak yooyu yaa xam te même tubaab tey bu ñu fecc bale sax ay paay dañu koy compter 1 de 2 3 un deux pas yi noonu ñu feccee tubaab boo koy jàngal da nga koy jàngal un deux deux noonu lañu jàngee pas yaa dégg moo tax bu tubaab siifee même boo ko gis bu nekkoon si lënd ba nga xam ne kii tubaab la parce que li nekkul si deret bi waaw ndax dégg day des ok tubaab lu mu mën a mën tëgg tama wala sabar wala tëb fecc dina des parce que nekkul ci moom mm-hmm. ah, donc euh, ñu gën a yaatal rek mm-hmm. ndax musique amul frontière donc tey pas yi maa ngi tey am na pas yoo xamante ni yenn artistes yi ñu ngi koy jël par exemple la preuve Wally Seck maa ngi gis mu ngi def ay paa def di chercher ay euh, ay ay ay featuring mm-hmm. c'est bien mm-hmm. parce que musique moo laaj loolu mm-hmm. Wally xam na ni fii kenn dootu ko présenté ti dégg euh, yàlla may na ko people euh, ndudd yàlla may na ko lu bare bare bare ci xale dégg léegi xoolal expérience la mu ngi am di comprendre nekk ni affaire bi dafa laaj jéggi frontière yi moo tax muy def diw ak yenn grosse pointure yi nekk fële ne est c'est important. ok mhm. voilà mi ngi noonu kon euh, musique amul frontière Demba Guissé moo ko wax moom xam naa ne sax d'ailleurs loolu moo tax festival yi li muy génnee ay milliards ak yooyu moo tax xam naa Demba daal bañ ne moom du dem ci benn label Demba daal il préfère. Euh, liggéeyal boppam parce que nag dëgg neexul fii label boo fi dem. festival tubaab yi bu ñu la woowee milliards yi moom doo ci am lu bëri tuuti nga cee am. non dafa am label bu ma woowoon temps yii passé. Mhm. bëgguma cité. si moo ci moo ci label yi fi nekk rek. Mhm. waaw waaye bi ma label woowee na ma dama bëgg ñu liggéey wax ma nii ak nii laa ko bëggee. Mhm. boo ko dégloo ba pare lim ma wax. mooy li may def nii. ok ah, maanaam nañ def Cissesse nañ def Grand Théâtre nañ def soraano nañ def ay soirée ma ne ko sëñ bi ma yooyu yooyu laay def nii de. <laughs> waaw léegi kay boo may indil dara projet tegal ma foo xam ne man demaguma fa defaguma fa egguma fa waaye la même chose. Mhm. moom laay def di avancé wuñu mais naa school mhm. après ku nekk nekk si jàmm dégg mama mhm. maa ngi nag remercier ñi nekk ci label yëpp ndaxte nag euh, euh, euh, samay xarit rek fa nekk. bañu maa dugg ci. label mais pour l'instant ni sincèrement maa ngi ci yeneen affaire di ko doxal muy naaj si ay dégg. Mm-hmm. wax dëgg yàlla nag ñeewu ma nag wax dëgg yàlla benn artiste bu nekk si label pour dire vrai nag. Mm-hmm. Mm-hmm. comme ñeen yi naan oh, war naa am lu ma am wax dëgg yàlla loolu man dalu ma. Eh, euh, euh, ma nekk si label ou bañ faa nekk maa ngi koy dund naaj parce que nag ki jël nit. wax naa ko benn jour euh, jàpp naa ci loxo nit artist woo borom label ne ko nag booy bu am talaa ngi nii il faut nga jàppale ko dugal ko ci mm. affaire bi. Mm-hmm. yàlla dogal ma envoyé ko sama booy bi mu jàpp kooku booy baa ngi nii yéen a ngi koy gis muy def ay soirée am di def ay affaire am te mu ngi ci label ba te man mm. woo naa borom label ba wax ak ma mënuma eh, effectivement am na ku ma ko waxoon mu ne ko waaye defal tuuti rek boobu dugg. Mm-hmm. booy boobu dugg a doxal. waaw xanaa ki def loolu séeq ko ak borom loolu kay xanaa nag kooku moom ah, du problème nag mu dem dugg ci la bi. dégg maa ngi à l'aise. maa ngi à ni daal ça yaa ngi gis sa bopp bu baax. Mhm. ci que boo demee label. waaw non non maa ngi cool maa ngi cool. maa ngi sant de. léegi Demba ak euh, Grand Théâtre kañ yaa ngi waajalaat Grand Théâtre wala. si sees laa defoon daaw. Mhm. daawaati jéeg. Mhm. soit euh, Sorano laa defoon. mais je pense que Sorano laay laay defaat quoi. déet. dem mhm. foog ñu laal Grand Théâtre. Hmm, lan mooy diggante Sorano ak Grand Théâtre lu nekk lu nekk Grand Théâtre. dara nekku fa mais hmm. booy xool public bi nekk euh, Grand Théâtre nekkul Sorano. luy problème bi. y' a pas de problème euh, je veux dire nit yi qualité nit yi ngay soxla. qualité boo xoolee nombre de places. yi nekk Grand Théâtre man qualité son laay xool. ok man su ma waxee ci xam nga tey boo demee bay dem Sorano wala Grand Théâtre wala Cissé fu mu ci mën a doon. Mhm. pour nit yi ñëw la nit yi di ñëw dañuy dagg tike loolu noonu ci ngay amee looy suturloo vrai faux. Mhm. voilà tey suñu waxee tey dem ba yaakaar naa ne amatul looy prouver Sorano parce que dem nga fa. si aussi même chose léegi nag gaynde gu mag gi moom lañ bëgg nga song ko. xam nga lii laay waxati encore ci artiste en Sénégal yi. ñoom daanaka seen seen ndeysaan seen rêve yëpp mooy. seen carrière yëpp mooy nañu tëgg grand théâtre après seen carrière fa la yam jeex na. déedéet yow grand théâtre xam nga lan laay xool ndax yaa ngi génn def xam nga festival yoo xam ne tey la xam nga stade de France doo ko xam nga stade de xam nga Bercy. Mhm. xam nga Wembley. Mhm. artiste bu nekkee waykat na am vision pour dem foofu te ngeen bàyyi naan grand théâtre yaa ngi dégg. grand théâtre rek yëngulee nag foo ci mën a def rek defal bu say nit ñëwee rek nga mën leen a satisfaire je pense que c'est bien yaa ngi dégg mm-hmm. gis-gis bi mentalité boobu ñu yor ay noo kañ ngay dem grand théâtre pour ñoom dégg nga am ñoo xam bi ñu defee grand théâtre ba tey ñoom pour ñoom fi ñu léegi moom mat na léegi moom seen carrière jeex na waaw parce que Sénégal nag fii Sénégal suñu euh, Sénégal grand théâtre mooy suñu zénith bu doon lool ak lool la rek kon nit du feesal fi grand théâtre après mu romb ko dem zénith nest fekkoon ki escalier la. Mm. xanaa ki def grand tête bu paree war na dem stade amitié wala stade bu bu bu ba leen tudd Ablaye Wade ma waaw amitié dañ fay tëgg. waa Youssou Ndour tëgg na fa ba taay. Ah, waaw dama ne bul comparé Youssou Ndour Youssou Ndour loolu beneen niveau la ki dama ne. Uh-huh. man xam nga man sama yaa yàlla daf ma dimbale. Mm-hmm. je pense que ren. su ma defee sama anniversaire je pense déwén mooy nekk sama sixième xaw ma cinquième je sais pas je pense mooy nekk sama sixième anniversaire xam man xaw ma cinquième anniversaire xam mhm. yëpp saa su ma ko defee après la gis Demba Guissé a réussi son pari mhm. à Sorano dégg mhm. boobu laa soxla woon bi ni Youssou Ndour joué fa Baaba Maal joué na fa Ndiaga Mbaye joué na fa les grosses pointures laa lay wax ñi ëpp tur ci àddina bi yaa ngi dégg est-ce que xam nga bi nii nee nañ ma wóoru ma fekk yow mag nañ ma jam sa brand ñëw nañ fi. nañ ma Sorano Michael Jackson ñëw na fi. Mhm. pour rek ma jox la information balaa ñu naan dem Demba Guissé nee na. dama ko dégg ci histoire ñu ne ma Jackson 5 ñëw na non non c'est vrai man dama ki histoire ak xeer yi xam nga. Mm-hmm. xam nga ñu ne Jackson 5 ñu parce que euh, Michael Jackson Jackson 5 la nekkoon comme dafa mel tey ñu ne la nangam famille yaa ngi dégg. ja mm-hmm. Jackson 5 je pense quatre personnes la ñu yaa ngi dégg xam maa ngi sax temps yi passé benn soleil ñuy wane Youssou euh, euh, Michael Jackson fu mu yéegee ci xaw ma. boo sareet la xaw ma lan la nekkoon fii ñu wan leen nekk quatre personnes euh, mille xaw ma ñaata ban année la woon yaa ngi dégg. Mm. boobu soraanoo lañ nekkoon bu xam naa ne boo laajee. Euh, ay ñoom Massamba Gueye wala ñoo xam ne ñu ngi fekkee histoire Sénégal dañ la wax ne que Jackson 5 ñëwoon na fii Michael Jackson bu gën a nekk xale moom ak euh, groupe bi. Mm. ñëw senegal fii. yaa may comprendre. Mm. histoire laa lay expliqué yaa ngi dégg. léegi nag tur boobu yëpp Sorano am. Mm-hmm. dégg mm-hmm. li ma yóotu dem tëggi ji mooy. ma jël par exemple ñu ne dem Demba gisa de ci carrière am ci palmarès am ci biographie am vraiment na Sorano bi nga xamante ni diw ak diw ak diw ak diw jeune nañ fa. yaa ngi dégg xam nga Sorano li tax ma taamu ko tout le temps di fa jouer mm. Grand Théâtre baax na Cissé baax na tous yaa ngi dégg xam nga mais Sorano man tout le temps su ma koy def ma wax li gën a tax deew ma Grand Théâtre. Mm-hmm. musu musumaa def dama lay wax cause yi d'abord. Mm-hmm. musumaa def. Mm-hmm. anniversaire ba am benn sponsor. ok mhm. ndax léegi wax naa ko keroog ci sama émission ak biisu ngoone mhm. Diss bi sponsor majeure partie laa la wax partenaire yi majeure majeure partie relation la. Mhm. par exemple sama xarit moo yor entreprise sangam oubien bien diw moo xaw diw aw diw mun a ñu dugal ko yaa ngi di xam te wax dëgg yàlla nag war naa nag man nag man am naa nag public nag bi war a mën a jaay sa produit boo ko indee ndaxte li nga soxla mooy nit ñi. tout à fait people bi loo soxla mooy télé bi am naa ko chaque année ma def yaa ngi dégg. waaye léegi dama sonnatul sax vraiment di daw ci ay yaa ngi dégg xam nga sponsor ñëw ñàkk ñëw partenaire ñëw ñàkk ñëw dama koy def def naa ko 4 fois su ma ko defee cinquième fois du nekk sama problème yaa dégg. Mm-hmm. benn bi bu may def sama soraanoo teg avant tout d' abord avant parrain avant marraine avant partenaire avant dara damay dem sama compte fii ma ko ubbi. dem dugal sama carte mbaa ma dugg dem toog man leen tak temps laa soxla ñu génneel ma nangam ci somu xaalis ma fay commencé fay la communication partenaire à télé bi xool naka laay defante ak ñoom ma fay lépp pour soo ko demaar yaa ngi dégg waaye léegi koo xamante ne nag bu lépp ne euh, kët ne jonn kay njëkk a sa xaalis avant kenn génne yaa ngi dégg euh, lépp sa poos lay jógee d' abord après parrain ñëw mais parrain yi ngay tuddee da leen neex rek mu ñu joxe bu la neexee joxe parce que c'est pas ay dégg waaye léegi fekkee ne Sorano su ma ko fa defee dama koy def ak samay propre moyen sans problème sans det amul bor amul dara yaa ngi dégg waaw léegi ah du ko tëgg foofu su ma ko naree a tëggee en grand théâtre grand waaw deseeg ay bor grand moo moo moo ëpp fere mais man kenn musuma fayal saal mm. Sorano su ma neexee tey su ma neexee man euh, su may tëgg fii en Sorano ma def ko ba pare aw ma ci benn bor moo ma ma def ko grand théâtre wax kii ay bor dama ci fekk du ko def mm-hmm. dégg ba pare aussi ma wax la benn affaire mm-hmm. pour ñi ko xam te xam musique moo wax yaa dégg nit ñi acoustiqué Sorano pour son bi benn saal amu ko fi mm-hmm. yaa ngi dégg ni ni ñu acoustiqué son Sorano bi laa wax benn saal amu ko fi Sénégal vrai. parce que aussi tamit nag fii Sénégal la sama genre gi suñu site yi dañu gaaw ci vaar trop grand théâtre fii ña ko dem di songu di jinne jinnelu fii. non man moom ah, grand théâtre du lenn si man moom bañ ko songee <laughs> ah, grand théâtre nee songu de. waaw xam nga lool la man moom aw ma aw ma. xam nga man kii sax man man mosuma joué ci saal di xalaat naan. ay no dafa fees ak fees man da nga xam man spectacle moom moo ma gën a ñor. mais ñaan nga yàlla tam kuy joué tam ñaan nga yàlla mu fees de. kenn waxula ñaan naa yàlla mu bañ a fees waxuma loolu de dama ne su may wax li ma gën a basé di ko def ma spectacle bi man demb Guissé maa koy def yaa ngi dégg bu doon juróomi nit ñoo ñëw ma woy leen yaa ngi dégg bu leen neexee nag ngeen bind dafa dama dama dama dama dama dama am problème yaa ngi dégg. waaye quand li ma war def dama désacraliser oui Demba Guissé dafa désacraliser amul problème. maam góor da koy bañ de. kan boobu. maam góor maag far moom xam na. da koy bañ que non maam góor maag moom ñoo far. yaa ngi xam nga et aussi maam góor bi mu koy way fële ne. Mm. mais attends yorom ne aussi si si si si si si jasakalisé ah. Mm. ah am na nit amul nit wooy na def na orchestre am wooy na lu naaj après dem na et je pense que loolu mooy artiste. mooy base bi. oui bi maam góor dese fii sa mbokk yi ku nekk di wër naan xoola amul nit lijjantiwu leen sax. ambiance na fecc na way na def na live bu extraordinaire par na affaire na kesem wàcc na dem na këram yenee sonn nag nan a jasaakili li jëntiyu leen sax maam góor maam góor dara xoola dara safu ko lijjantiwu leen sax neexul de a jasaakili xoolul sax loolu way na ko neex na pare na fay na musicien mi fecc na ko def na ambiance pare na dem na ngeen nefa nag ku nekk naan jasaaka lisé mu ne ci activité bi dox xante dëgg am na loo xam ne neexul ci xool ku sañoon boo wootee ñu wuy si la man falaayam xaa dëgg lu ma dugal waaw ñëwal ñëwal voilà Demba Demba tey sa diggante ak ki nga xam ne sa sœur la di sa xarit muy euh, Penda Guissé <laughs> sa lakkal waaw moom lan mooy problème lan moo tax mu sonal la di la ruube di la tendance ci réseaux sociaux yi di la la def yenn yi sama fans la moom déet moom kay nee na yaa ko fan. sama fan moo la may bës jàppale la ci yenn yi. sama fan la daf ma fan rek xam nga fan buy buy kii am wax ndey baay mi pour mu jot ma problème la parce que damay xaw a la jot. des fois waaw yow star nga <laughs> waaw. xam nga jotuma moo tax tout le temps muy sànni xeer quoi sama fans la. man mm. daal laa si mën a wax. loolu nga ci mën a wax waaw. <laughs> sama fans la sama waay la quoi yeah léegi nag dem dañuy ñëw ci euh, Demba Guissé ak sow showbiz bi balaa ñuy ñëw ci yooyu dañuy wax Demba macha allah nag wax dëgg yàlla. comme li ñuy wax Golo yaakaar naa lu ko nit nit bañ bañ nangul ko ay noppam yu gudd yaka yàlla may Demba bu dee way rek euh, wax nga ko sànq macha allah mën nga way torop parce que lu fi nit di way rek way nga ko tey boo demee ba ki nga xam ne artist planétaire la Baba Bay di mal buy def dara wala bu bëggee nit soxla ko mënu ko jot mu am empêchement yow lay xalaat loolu rek man pour man succès la amatul dara li nga xam ne yaa ngi koy prouver franchement euh, tey lan moo tax euh, xale yi yenn bruit bi ñuy def pour seen musique jëm kanam nit yi dégg leen coow li bari démb doo ko dégg ci benn détail démb duñ ko dégg ci lenn démb mi ngi ci ko am bu amee lu muy génne génne ko bu paree toogaat jàpp ñàmburam lan moo tax démb xaw a effacé wu noonu tuuti. c'est quoi problème léegi loolu ban bénéfice nga ciy am moom. pour pour mm. bruit beeg yooyu question la tu me voilà. Ah. léegi <laughs> naa. Ah. Eh, man defaruñ ba yàlla sàkk ma pour ay biir yeeg yooyu quoi sincèrement quoi. <laughs> comme yi ngay bëgg nii ay no ay ay scandale yooyu genre ay yooyu may wax fii gars ku nekk yaa di xam du ma nit boobu. Mm-hmm. mënuma forcer loolu def ko. Mm-hmm. ku ne dafa am lu ko jikk mm-hmm. man loolu jiguma du ma nit boobu ku nekk dafa am yàlla la sàkk nga nekk say yoon yaa ngi dégg et pourtant du man kese am na yenn artistes yu mel noonu. waaw mais man yow laa invité mënuma tudd keneen yow laa. waa bon pour rekk wax la rek pour réponse bi mooy Euh, sàkkuñu ma pour may nekk artiste yooyu def ay biir weeg yooyu quoi sincèrement. di buzz nekkuma ci yooyu xam nga buzz talent da ko fay jëlee dóor ko mu dal di fële. Mhm. ok gis nga buzz amul solo. mais des fois day fay talent. waaw xam nga non buzz nag du yàgg dama lay wax. buzz kay du yàgg. moo tax déggoo Pawlish ah, Mbaye li muy wax. kay dama lay wax parce que buzz dafa doy waar. gis nga dina rafet lool nag ñu ne la artiste bi mooy kan nga dugg tàppe. ñu ne la kii ah ok li nga gis titre ñu ne la ah diw ma moo joué woon fii moo toj fee moo defoon yaa ngi xam kan nga def diw moo biiraloon kii diw moo yàq biir bi nii. diw moo diw moo jaayee dorog bi nii lépp nekkoon ci ay buzz yoo sa bopp wax dëgg yàlla. Mm-hmm. est-ce que xam nga ñu ngi fooyee buzz lu lu garaaw. Mm-hmm. est-ce que xam nga euh, euh, euh, des fois di nga créer sa bopp buzz boo xamante ni titre ba mooy empêcher ñenn ñi ñeme la. dëgg la. ba xam dégg wax. bu baax maa tey par exemple. Mhm. ñu ne diw lañ soxla mu tëggal ñu concert sàngam. Mhm. fekk yow kerewoon nga benn buzz ne yaa yaa viole woon xale sàngam fekk yaa ko kereen pour sa buzz yaa ngi dégg ah, xam te fekk yow ñoo ñu la soxla benn ONG la buy jàppale xale yi. yaa ngi nga nga liir titre bi. ñi ñi ñi tàppe ne sawaay lu mu weete ñu sawaay dafa mën a way ñu xool la ñu ne diw moo violoon benn xale bu am 16 ans fekk sawaay moo ko créé woon bës dégg te fekk yow loolu eh, kii ONG bu war a jàppale en xale yi buy def ko lutte contre ay ñi nga xam te ne ñoom ñooy viol yaa ngi dégg mm-hmm. yàqal nga sa bopp titre ba dafay des yaa ngi dégg mm-hmm. ñu ne léegi ñu ne gars yi dama bëgg créer benn affaire de xaaral ma génnee benn ma kii gars yi ne gars yi kat sawaay dafa dafa dafa dafa kii dafa dafa kii quoi dafa dafa dafay jaay drogue dégg waa léegi yow nga créé loolu def gaa yi jàppale def nii ñu ne non sa waaye dañ ko jàpp ak drogue nangam nangam et sax ça ay dégg nga créé ba Sénégal yëpp génne nga génnaat a ah, xam ne ni noo du ba genre nangam yaa ngi dégg xam a léegi loolu des na si internet bi suba nga bëgg a déposé ji en ambassade États-Unis mm-hmm. nga tàppe ambassade des fois dafay dugg ci sa te dugg ci YouTube tàppe kii kan la wala wala Google ambassade dañ koy def tàppe kan la waaye léegi bu ñu diggee ñu ne diw dañ ko jàpp si drogue ñu xool sa photo xool lépp ñu xool ñu ay bës de dañ naan nii rapidement dañ lay caché <laughs> doo am caché bi xam dañ lay rejeté parce que yaa créewlu sa bopp loolu moo tax des fois yooyu amul solo bës ngay gis mu nekk lu gaaw vite fait trois deux mois trois mois jàll na yaa ngi dégg xam nga léegi talent nag moom day nekk ci yow dégg ki abu ci bolo loo koy waxal ku mën a woy macha allah torop dégg Abdou Guité ko loxo waxal ku mën a woy da mm. nga nag keneen yaa ngi xama xama dama jox exemple tuuti yaa ngi di xama xama et mm. pourtant bu nekkoon da ngay wax ne ku nekk fii instant bi buzz ku nekk yaa dégg xama mën nga koo a euh, woo parce que da nga xëy na dañ ko dégg yaa ngi dégg waaye talent baa ngi fi ba tey mm-hmm. foofu laay waxee donc bokkul ay buzz ak yooyu vraiment nekkuma ci yoon xam naa ñu dafay buzz mm-hmm. def buzz mën naa ko def léegi léegi ñu invité ma en direct plateau ma tàng tàng lu xam a jékki-jékki wax ak kii ba ak ma pes ko comme ni Pawlish defoon. Euh, fifta euh, ay dégg xam ma xam ma ba pare jóg te ate boobu day nekk euh, loo xamante ni direct lay nekk. Mm-hmm. xam bu nekkee direct nag après nag. Sénégalais yi génn wax xam nga bu subaa ma génn gaay maa ngi jégalu ni ma ko laajee moo metti nangam nangam yaay ngi dégg dem yaa dégg mm-hmm. fekk du ko jaar. man daal vraiment doxuma ci buzz vraiment doxuma ci yooyu xam naa nuñ koy defee. Mhm. bilaay walaay xam naa ko baax a baax a baax. Mhm. su ma neexoon léegi góor laa ma génn ba nii def sama benn en caleçon léegi taxaw ni yaa ngi dégg et pourtant dara génnul de mais le fait que Demba Guissé moo def caleçon rek affaire ba tas partout yaa ngi dégg xam nga. Mhm. léegi nag xamal man lu ma si gën a soof. léegi ku nekk yaa moom sa sa sa sa téléphone. léegi ku nekk conseiller nga ku nekk waxkatu dëgg nga. ku nekk léegi euh, euh, euh, kii nga quoi maanaam maanaam maanaam maanaam conseiller nga quoi maanaam fi fi kii ngay toog waaw yow dembe gi sa yow yow waaw yow man la kii waaw li nga def di yaa ngi mm. léegi nag kenn léegi comme TikTok ak amul kubéer mm. nga toog fii léegi def sa émission ba pare remercier ñi wax pare kenn toog fee këram bopp la am yàq la lu mel ni xeme wax la lu te mënoo ci daara. dëgg la yaa ngi dégg. Mm-hmm. yooyu boo bëggee nga éviter ko yaa dégg am ñoo xam tey bu ñu leen leen songee di nga am ñu leen xeexal. Mm-hmm. man wóor na ma ne man suñu nit doon def ay vidéo di ma saaga di ma def eh, ay def dara ma du ma tontu yooyu dégg waaye di nga gis keneen ku la dàqa saaga lu mel ni xeme. te fekk ne que ma ko xam yaa ngi dégg non non papa da mën xam nga man leer na ma man mm-hmm. bu ma attaqué tey mën ngaa bañ a gis sama réponse waaye di nga gis ku la dàq saaga téeméer junni yoon yàq la lu mel ni xeme te doo ci mën dara xam fekk sax mën naa bañ a xamante moom yaay dégg parce que xamuñu ma ci loolu. Mm-hmm. yére boobu moom ma ko du ma sol du ma sol yooyu. c'est important Demba Gueye c'est nee na buzz dëgg la neex na mais du loo xam ne am na mucc li ko ëpp solo daal mooy euh, talent léegi Demba euh, ñu ngi ci nag euh, cëppaandaw gi ndax émission bi mi ngi waaj a jeex balaa ñuy ñëw ci avant dernière question bi Demba ak yoo léeg-léeg bi dafa mel ni comme li ma la ko waxee ayo bébé neex na nga ñëwaat ci yoo leen waaw yoo leen la nag neex torop yoo dama ko def parce que dama dama dama damaa gis ni que man de comme dama bëgg yëf yi yàgg ma doon chercher chercher ba yam ci Youssou Ndour bi ma ne pourquoi pas yoo leen bi yoo leen bi aussi ma def ko Sénégalais bëgg ko mhm. ma dem ba ci digg bi ma dugal deuxième partie bi Ndongo Lo mënuma laa bàyyi mhm. Ndongo Lo nekkoon koo xam ni vraiment xëy na yàggu fi lool ci ci affaire bi mhm. waaye def na fi vraiment ay jéego yu am solo Euh, et j'ai aussi a ah, bariwul trop li ñu koy. Euh, rendre hommage ci dara bariwul sax lu ñuy faral di jël ay woyam te pourtant woy na woy yu yu yu am solo dégg ñun aussi day jot euh, day am solo nag des fois ñuy jël des fois yenn yi di ko indiwaat xam di ñëwaat encore ci li nga xamante ni moo fi amoon muy ndongoloo amoon talent trop mënoon woy et tout sax donc mooy profité aussi di nuyu sama maire maire mère na ba Fall depuis mu ngi États-Unis instant bi donc di ko ñaan yàlla mu gudd fan lool ak aussi sama grand euh, Iba Sey bu baax mi nekkoon xarit ci Ndongo aussi di sama grand Njambe Gueye Njambe Gueye Njambe Gueye mu baax trop nag di sama grand di seexu Ndongo aussi waaye ménagère Ndongo Lo bi Jiliña depuis États-Unis vraiment moom it ku baax la aussi. ok mhm, mhm. mi ngi noonu Vieux nag euh, ma naan la sax Vieux Demba ñu ñëw nag ci suñu dernière question euh, amaane wax waxaat sax du bëri wax mais dafa dafa doon loo xam ne yaa ngi ci biir ñun ñoo ngi ci biir mm. ndax euh, ci showbiz la muy famille Faramareen yaakaar naa ne waxoon nga ci sax mais mënul ñàkk nag ñu waxaat ci leeral parce Euh, euh, coow li bari na ci fi mu ne nii bruit la te comme li ma wax ci showbiz la daf lay laal laal ñu laal keneen ak keneen muy ki nga xam ne moo di Bambaly Seck ak Mandiaye ñu daal di euh, bokk ñoom ñaar li nga xam ne moo di benn label muy Subateel Music. waaw mais Mandiaye Mandiaye Seck la du waykat. si waykat la. Bambaly la du waykat. Mhm. waaw mais ah teel lan la maison de production. Mhm. waaw mais bu ñu demee dañ leen war a produire ñu liggéey. je pense que loolu kuy wàll yaa ne xanaa day fekk sa dëkk tëggul. maanaam. maanaam. Euh, ñëwaatal ci question bi ay noppi gaal dama ne. waaw li nga wax dëgg la Bambaale waykat la. waaw Mandiaye waykat la. Mhm. Subatel label la. Mhm. n'est-ce ñoom ñaar ñëpp am nañu sañ-sañ ak droit dem foofu. ah bien sûr effectivement je suis 100 pour cent d'accord avec mais ma ne la. xanaa tamit kuy wàll yi dafa fekk sa dëkk tëgul te yow sa buntu kër du am ay sabar nga bàyyi fa sabar yooyu dem ba parcelle naan yaa ngi seetaani sabar. mais attends yow est-ce que est-ce que est-ce que aussi yéen de est-ce que yéen du ngeen jaawale est-ce que tey. Mhm. ñoom dañoo nekkoon ci ci maison de production nekku ñoon fenn de. si da ngay da si si non dama ne nekkuñu woon fenn li nga wax ok ok nekkuñu woon si maison de production. Mhm. nekkuñu woon ci label donc bu leen label soxla war nañ dem ñi liggéey ak borom label bi je pense mhm. que c'est ça. Mhm. moom pour man loolu amul amul problème ah. mais rafetlu nga lu toll ni seen mag di artiste bu mag bi Wally Ballago sekk yoru label bu mag. ñu bokk cosaan bokk famille ñoom ñëpp. moom est-ce que sax waal bu déggee loolu du kontaan le fait que ay rakam lañu. ñu dem bon man dama rafet njort rek. dama ne est-ce que waal bu ah, la rek samay rak lañu nañ dem ñu produire leen je pense bien bu doon benn Demba la moom noonu la koy gisee day day kontaan da koy rafet. waaw vraiment dama koy rafet et je pense bien bu ko waal gisoon xëy na dina rafetlu mbaa bu ñu ko si laajee xam naa ne occasion bu ngeen amee occasion ba laaj ko waale xam naa dañ leen non ñun samay jàppale leen si liggéey day gën a avancer je pense que loolu la rek. xam nga c' est pas compliqué ah vraiment. d' mi ngi noonu Demba gisee la woon. ñu et beneen chose maa ngi bëggoon sax nga souligner loolu. Mhm. Euh, maa ngi gis fan yii saw pulo ardo borom nag ak meew yi. waaw. <laughs> dafa euh, maa ngi gis sax gars di ma si tooñ quoi. waaw morceau boobu. Mhm. Euh, dama ko dama ko woyoon sama album. yow waaw sama exemple na dana yaa quatre ans léegi mm-hmm. euh, sama album quinzième étage mm-hmm. dem dix laa ko génne mooy parti boobu man ngi ko génnewaat fan yii sax mais li tax ma génnewaat ko mm-hmm. damaa gis Waly reprendre at morceau boobu ci benn émission bu ñu ko invité 2STV maa ngi sax ay nit du ma sànni xeer nan ma yow moom yow yow gaaw nga de waali waay lii rek nga bëgg ko dugal studio te xamuñu ne def na 4 ak léegi. ma ko waxee dëgg mais waali mi ko wayaat mu neex. moo ma poussé waat. ma dem ji xoolaat déedéet ba wayaat ma dem ma jëliwaat ko ci ci ci ci ci YouTube mu si YouTube bi. boo tàppee Demba Guissé musique. Mhm. morceau bi mu muy tudd musique. da ngay gis ne morceau boobu mu ngi si yaa ngi dégg. Mhm. beneen ma ko doon leeral rek ñu yaakaar ni dama ko eh, dégg rek dem xam nga. Mhm. beneen bi chose mooy. maa ngi gis aussi gars yi eh, di bëgg a corriger ne Wally ni mu waxee parole du noonu. Wally toggul woon foofu pour xool les paroles. Wally bi la topp rek parce que dañ ko doon bëgg a ne ko. yaa ngi fàttaliku lii bu ñu ko tegee rek waal topp harmonie yi harmonie yi ba trouvé ko mu ngi ko woy aussi sax lu neex trop ti comprends xam nga léegi bi mu ko defee gars yi naan waali euh, ni mu ko waxee du noonu waali cherchewul woon loolu boo déggee sax waali bi mu ko woowee bu mu waxee bu jeexal mu ah, mu ngi naan c'est ça non. c'est si. ok donc mu ngi laajte question est-ce que nii la noo gars yi ni ko waaw donc trouvé na loolu yaa ngi dégg. Mm-hmm. ok am na keneen encore ku génn. Mm. ne yéen a ngi werante naan. Euh, sàppal sàppal waaye euh, sàmb ak isaapal du sàmb ak isaapal ma wax ko directement pour ñu gis ko nekkul sàmb ak isaapal mhm. hmm? sàmb ak sàmpal ma ndaw ak galo sàmb ak sàmpal ma ndaw ak galo sàmb ak sàmpal ma ndaw ak galo ok ok ok loolu a tagg bu ñu taggee faatu Sow ndax morceau bi ñu ngi ko woowee 1996 ki ko woowee mu ngi tudd ba ak Ablaye Diop. ñoom ñaar ñoo ko woyoon groupe bi mu ngi nekk mu ngi tudd groupe dëgg gi. yaa ngi dégg ñu jóge woon Kaolack. Mhm. yaa may dégg. waa ji nag kii de kooku lay corrigé kii génnoon naan Samba ak nekkul Isapël xam nga Samba sampal Sampël Mandaw ak Galo sawpulo ardo borom nag ak meew yaa ngi dégg. Mhm. Samba ak Sampël Mandaw ak Galo sawpulo ardo borom nag ak meew yaa ngi dégg. Mhm. aussi Fatou Sow lañ ci woy léegi sax a décédé na. rakku yaama saw xam naa li may wax dinañ xam li may wax dégg mu ne kon Fatou Sow yàlla sax dafa dogoon ndeysaan handicapé la woon mm-hmm. xam waaye aussi mu baaxoon loolu aussi bëggoon xaritoo woon ak ñaari woykat yooyu mm-hmm. Ablaye Mbaye woyu ko woon daf ko dafa defoon refrain yi mais du woyu Ablaye Mbaye dañ ko invité woon mu def refrain yi ah dégg ndax Ablaye Mbaye ku ne xam na ni bokkoon na ci duo la gënoon mën sax dafa dafa mënoon woy trop dégg mm-hmm. mais ki ko woyoon mu ngi tudd Laay Ba Mm-hmm. mu ngi léegi Europe mu ngi Italie. laay ba ak laay Diop ñoo ko woyoon c'était en 1996. Mm-hmm. may corriger war encore waa waa ji nga xamante ni vraiment moo doon wax loolu internet bi ñëpp ku nekk di di ma sànni xeer. di mm-hmm. sànni xeer waali naan parole du noonu. Samba ak ma Mandaw ak Gallo saw pulo arda borom nag ak meew amul Issa. ndax ñoo ñuy lim ay maamu Fatou Sow lañu ki ñu doon woy faatu Sow mu ngi tudd Fatou saw am magam bu tudd Yaama Sow. Mhm. donc dama doon euh, leeral rek ah. euh, lan moo tax nga jël sa temps yi di expliquer ak di defendre Wally di corriger li nga xam ne. wax na ko xanaa ah, Wally sa xarit la kaay défendre ma Wally nag. Ah. lu ma rek nag. nit laa bu am fulla bu mhm. am fayda. Mhm. bu topp ci ginnaaw kenn. bu ra bu raayalul ginnaaw kenn. c'est mm-hmm. une personne bu respecté ñëpp artistes yëpp muy xale muy mag muy ndaw. Mm-hmm. tey boo waxee tey Sidy Diop mën naa la wax ni kenn gënu ko ci àddina sama rakk la. xaw ma ko ci télé xaw ma ko ci rajo suñu biir kër laa ko xamee. dégg mm-hmm. nit laa rek boo xamante ni sama dignité ma sonal. diñ sama dignité ma sonal mm-hmm. duma dem soirée mm-hmm. du ma dem fenn wooteente ma kenn déggante kenn aw ma ci xarit aw ma ci àndandoo. mooy effacé wu bi kuul sama kuul. Mm-hmm. xam bañ naan da ko diw bër diw ma kenn bër. Waly Seck ak Sidi Diop ak ñëpp laa yemale. samay frère lañu. Mandiaye Seck Waly Seck Sidi Diop. Pape Birahim euh, extra El Hadj Keita ñoom ñëpp ñoo yem ci man amul kenn ku ma ci gën a xamanteel mbaa ku ma ci ñàkk a xamanteel ñëpp benn lañ ci man mhm. ñëpp samay gaayeen lañu en tant que musicien. dégg mais en dehors de musique bi am na ci ñoo xam ne am nga ay relation particulière yoo leen sekk. donc relation particulière mooy lan koy koy dénkanteel ay secret. non pas secret ñoo xam ne di ngeen déggante di wootante mën ngeen wax yéen ñaar ba pare doo leen wax ci affaire waxtaan en tant que des frères. tànk de frères mooy lan par exemple mooy waxtaan waxtaan àdduna waxtaan. non ok. non amul pour dire vrai je suis franc. ok xarit. mooy koy dénkan dénkanteel waaw yaay sama nii may dénkantewuma ak benn artiste kenn dénkantewuma ak man parce que séquñu loolu lu ñu séq musique la ñu séq pour dire vrai mais bañ toog ci internet bi di def ay effet te man bëgguma ay fen. waaw du ma nit buy fen yaa ngi dégg. Mm-hmm. ñëpp ñu baax lañu. séq nañu musique mhm. wax dëgg yàlla dem leen teg dikkaleen teg yooyu wax dëgg yàlla nag merci rek jàmm daal la dem Demba Guissé Seck ak ñëpp jàmba euh, émission bi fi ne euh, jeex na euh, sama gaa yaa ngi may signaler ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo wax sa dernier mot. waaw portez bien maa ngi leen di siyaar di leen wax ni yàlla na jàmm yàgg. donc di rafetlu. Mhm. sama rakk ji Fifita aussi. Mhm. liggéey baa ngi liggéey baa ngi rafet loola. Ah. moom yàlla def na ko. kenn du ne ko boo doon góor mhm. ndax mu ngi def lu góor di def mhm. am na yar am na teggin gëm na mhm. liggéey bi donc mënoon na fi nekk rek aussi di def yeneen ak yeneen. Mhm. ndax fii Dakar dafa kii te xam naa ni moom jógewul Dakar. Mhm. dafa jóge feneen ñëw Dakar. Mhm. waaye boobu ba tey mu ngi koy rafetal. dëgg loolu la ñëpp ñaan yàlla yàlla jàmm yàgg. dëgg la amiin <laughs> ah, noonu dem ba euh, jaajëfal nañ la bu baax di rafetlu euh, teewlu bi euh, mbokk yeeg xaritu internet radio 121 siste Chacha la woon ci présentation bi di jaajëfal nag bu ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw amaana ñun ñooy feeñ mais lu ci yemb rek jàpp leen ne ñoom la di jaajëfal nag eh, ki nga xam ne kenn la ci man elle est spéciale muy la reine la lionne du Sine Saloum Fifita Touré Mandimori mbokkum yaayum sañ Cheikh mbokkum yaayum sañ Fallou ture naaru Diarra Mbaye jaajëfal naa la di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jaajëf.